tuuti sey bàyyi ko Mbàkke dem foofee ca Jurbel askan wa fa ñoom itam daal dinañ am ab njàqare ci wopp soosee ñu duppee Covid 19 tax na ñenn sa ñoom di daal di yëkk fexe rek sénégalais yi fonk bu baax a baax tegtal yi nga xamante ne ñoo ngi bàyyi ko kër docteur Adama Ndiaye. tiitaange am ci askan wi nga xamante ne moo nekk fii ci njaareem ginnaaw bu feebar bi di coronavirus feeñi Tuuba ci diwaanu bii. ñeen ñi nag am ay xalaat yu wuti wute Ousseynou Badiane tiitul waaye nag jàpp na ne li leen war a mën a musal ci feebar bi rek mooy ñu sàmmonteeg cet gi ci tamit mooy tandiku yenn saafonteeg nit ñi sa loxo taq nga ñëw yeb ko ci làpp jaaduwul mën ngaa raxasu ba set ba mu leer na ne tey raxasu nga ak ndox ak saabu wala ndox ak omo sa loxo set nga doog a mën a jëfandiku bokk na ci tamit mooy tandiku poussière bi eau de javel waaw raxas loxo yi ba mu set diggante baaraam yeeg yëpp nga raxas mu set weeyeeg lépp. élève bi te bëggul waxtu turam gëm na ne feebar bi daal ni nga xamante ne noonu la ñu yaakaare ne war na fee mën a lawee ci lu yaatu warul deme noonu ndax li ci ëpp ci ñiy feebar bitim réew lañ jógee. le coronavirus je pense que c'est pas ici au Sénégal quoi parce que c'est seuls des gens des étrangers qui l'ont qui l'ont amené ici donc c'est pas ça ne concerne pas les Sénégalais quoi pas que ça peut propager comme ça au Sénégal. Pathé Sène di ab élève ci lycée bu Bambey doon camarade de classe am gisewul noonu ndax jàpp na sax ne tiitaange moom am na. Ah, xaw na ñoo tiit que ndax Touba Bambey presque benn la surtout comme école beeg ak regroupement yeeg yooyu xaw na suñu xel xaw naa kii quoi. Madiagne Thiam nekk ab enseignant jàpp ne war nañoo gën a ñaax nit ñi. ñu taxawee wàllu seet. muy ñu jëm a xool nu ñuy xaytoo suñu dëkkuwaay ak aussi suñu wàllu kii cet lu ñuy wàññee ki joxante loxo bi su fekkee dañuy xam ne loolu dafa bokk ci loo xam ne mën na tas feebar bi ku ci nekk aussi soo liggéeyee wàcc soo accès sa kër balaa ngay def dara. da nga ñëw raxas sa loxo ak saabu mooy aussi ñu bañ di di di di dagaloo foo xam ne dafa bëri nit lu ci mel ne ñiy tisooli wala ñi kii euh, saqat yu bari ban di jegante di di saqalu ba la aussi suñ ko mënee ki moytu xëy yàlla nañu dimbali am kon ñu jàpp ne autorité sanitaire yi nekk fii ci diwaanu Diourbel jël nañ seen motuwaay ngir wàllu riposte bi daal ñu mën ko taxawee tuubaa nag bokk na ci ñeen fukki yi district ak juróom yi nga xamante ni dañ leen jàppee district prioritaire Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye wopp soosee nag gis nañ ne moo ngi am njeexital bu baax a baax fii ci Sénégal rawatina reset yi ñu gis ne ñoo ngi daanu lay bàyyi ko biti réew te lu ca ëpp doon la nga xamante ni ñoo ngi ko doon jëlee ci réewum Chine wàññeeku na bu baax a baax prix yi nag gis nañ ne fii lekk euh, yenn produit boo mooy dina yokk ki ko xam ne di jëw jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gafa bi réew mi. moom nag jàpp na ne bu muy janoog way taskatu xabaar yi ne loolee dinañ ci taxaw nu mu gën a gaawee Abdoulaye Daouda Diallo ñu teewlu ko xaddi seen. coronavirus bi moom euh, disons euh, jàngoro bu métti la maanaam euh, pandémie la effectivement dafa am conséquence ci suñu économie xam nga économie surtout recette budgétaire lu koy tax a mooy importation yi or dañu constater ne que lu gën a bëri ci suñu importation Chine la jógee or Chine léegi su importation jógeetul foofu day conséquence bi day affecté réew mi yëpp si loolu donc si wàllum recette bi mais surtout si wàllum carrément importation yi de façon générale ba tax ne prix yi aussi nañu xalaat ne que mën a yokk euh, disons weer yi di ñëw parce que quand su mbir mi amatul effectivement donc ñu ko bëgg dañuy bëre effectivement donc la loi de l'offre et de la demande fera que quand même prix dinañu yokku mais loolu yëpp ñoo ngi saytu euh, bien sûr dinañ def ay réaménagement parce que nag loolu su affecté budget euh, sûrement donc il faut ñu waxtaanaat xool war a mën euh, budget bi waxtaan nañu aussi ak suñu partenaire technique financier muy banque mondiale ak fonds monétaire ñoom xam nañu nag à l'image de tous les pays du monde Sénégal aussi dafa jànkonteel ak disons coronavirus bi loolu nag laaj na ay effort ñoom it ñu appuyer ñu si wàllum boobu euh, du Sénégal rek c'est tous les pays du monde qui sont concernés par ça donc xam naa ne Sénégal aussi dafa xaar si si partenaires yooyu non seulement appui budgétaire mais aussi a réaménager suñu budget affectation fan lañ ko mën a affecté. mais koppar euh, yi ñuy xaar exeguñu. non koppar yi exeguñu waaye dans tous les cas euh, rafet nañ njort ko dina ñëw incha allah parce que quand même c' est c' est du sérieux ñun ñëpp xam nañu ko et du Sénégal rek euh, disons le concerné effort yi dañu ko waxtaanee au au plus haut niveau maanaam ñu xam ne que c' est des appuis yi nga xam ne réew bu nekk di disons nekk si situation yi war na mun effectivement donc profiter si situation boobu. fexe di xeex lu jëm ci wàllub coronavirus boobule tax na conseil supérieur bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi fii ci senegal ñoo ngi yee seeni ñoñ jaarale ko ci xaralu yee si rawatina li di réseaux sociaux yi ñoom nag gis nañ ne faw ñu daal di taxaw taxaw boobee ngir rek daal di mën a gën a yee seeni ñoñ ñu teewlu kenn fa ñoom di Amadou Tidiane Talla xab say liman woon ñu ngi ci surtout tam bi ñu déggee ne OMS dafa def déclaré ne coronavirus léegi la à donc euh, loolu moo tax ñu defar nañu benn communiqué bi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ci réseaux sociaux yi di fexe daal ba mu yeggee ci daara Sénégal yépp waxatuma rek euh, daara yi nga xam ne ñu ngi bokk ci ñun ci conseil supérieur des maîtres Sénégal mais ci daara Sénégal yépp ndax sëriñ bi ñu gën a moytu yokk ñaan bi mais gën tam euh, moytu gën a fagandiku surtout toppatoo xale yi xale yi ñu set daara yi set seen yaram set seen yére set surtout ñuy raxas seen loxo su ñuy génn daara yi ñuy raxasu ak saabu suñuy ñëbbi ñëwaatee tam ñu raxas ak saabu te aussi am na ay daara yoo xam ne amuñu amuñu ay robinet amuñu teen amuñu dara mais su fekkee mun na nekk ñu jëndee ay ay gel hydroalcoolique loolu yooyu ñu teg ko foofu ci daara yi xale yi fomp ci seen loxo suñuy surtout suñu ñibbisee jóge ci di dugg ci biir daara ji aussi ñu xam tam euh, ñu wax wax xale yi kuy xam ne dangay sëqat rek na jël dara lu fekkee am na mouchoir wala benn kii daal serviette wala ju mënta nekk rek nga def ko ci sa kanam bañ ci kanam nit ñi te aussi ñu xool tam euh, groupe xale yi itam bañ a itam encore suñu fekkee ñu ngi toog di jàng am distance tuuti loolu loolu yëpp su fekkee mun na nekk rek en tout cas ñu sensibiliser ndax euh, feebar bi yàlla moo ko indi yàlla moo ko jël fi incha allah ci suñu ñaan waaye itam ci suñu fagar ndax yéen bi sallallahu alayhi wasallam moo wax euh, nit ki jullit ki na nga fagaru ci sa kéemtalaay kattan dana nañu fexe tam ba communiqué bi yi arab ak français yëpp ñu jàll ci quarante cinq département ñoom tam ñu ba tasaare ko ci daara yi foofu ci seen euh, département yi incha allahu taala sa xalaat li ñuy waxtaane bokk na ci ñàkkum lim bu néew bi ñu nemmeeku ci ñuy fay impôt fii ci réew mi beneen bi dox na ci daje bi dox diggante njiitum réewum Sénégal ak bu Gàmbi ak lafaru see rawatina nag fan yi luñ fa nemmeeku ndagum bant yi ak lu jëm ci alub Casamance bi naka ngeen ko gisee ak it luy ay di njàmbat di coronavirus bi lim bi daal dinañ gis ne yokku nañ foofee fa Touba lan moo ci seen xalaat ci 88 628 98 98 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. aha sëñ bi. ah Birahim. aha. ñu lay siyaare. ñoo ngi delloo ziar. alhamdulilah. noo tudd ak fooy woote. Aliou yow la ñuy teewlu. waaw man de damaa bëggoon wax rek nii. ñi ñu doon waajal Kazu Rajab bi. ñoom ñëpp dañu bàbbi ku dem. Mhm. gis nga coronavirus boobu ñuy wax. Mhm. li ma gëm mooy Touba benn coronavirus amu fa même Sénégal laa lay wax xam nga ñoom luñ leen luñ def. Ah. grippe bi dong lañ mooy dal ni ñu yóbbu leen ne da ngaa coronavirus daal ne faj nañ ko wér na. ana Sénégal kañ na mën a faj si buru sax bay faj coronavirus. <laughs> dañuy wax rek ñu dara lañ fajut ndax ñi ko ñi ñi hôpital yi fii. nga xam ne daanaka mën nañoo defar sax nit ndax aay mënuñu koo faj ñoom ñaan faj nañ ko wér nag am na feer Tuubaa yokku naag at am naan moo xam ne fii dañ ne woon fii obela bi daa am ñaan ba nga Tuubaa lu doon bañ nit ñi dem ndax waxoon nañ ne fomm kaso kii bi màggalu Poroxaan gi ñu ko kaso rajo gaa ngi jut si bugguñu nit ñi dem tax ñu naan daa am Tuubaa dara mu fa dara bu ñu génnee moo dugg duñ ko génnee ndax bu amoon xam na ñun ñi fi xamante wu nañ ñëpp xamante wu dëgg la waaye daayira yi ak kii ñoo tax kon da nga dégg ko am am waayante fi naan daa feebar nañ ko ñaanal la coronavirus. yow bu naa benn waaye barki démb too bu jógee bu njëkk Touba Youssou la tudd bi muy départ fii dafa amoon grippe ba ma àggee di bëgg a dee mu woo ma mu ne ko bu demee hôpital boo demee dañuy wax da ngaa coronavirus dara dellu la grippe doomu la fi mu toll wér na ba ma ngay ma ngay waxtaan. Hmm. Birame ñu ngi lay mm-hmm. sant di la gërëm. ñoo ngi lay sant di la gërëm Alioune Guèye woote foofee Torino ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. Birame na nga def. sant bu baax alhamdulilah Dia. Amadou Fadou Wale ñoo ngi lay fay Dia. di la siyaara di siyaara sama ñetti oustaz Sow di ñaan gudd fan ak wér ak xéewal ak ndam yu bari te mhm. dina ñaan yi bu baax a baax ñu ngi la koy delloo ñun daal ay jullit lañ gannaaw yàlla ay ñaan moom gëm nañ ko lool mhm. nañ ñaan sëriñ bi dolli ñaan yi yàlla yemale si mbir yi mu jeex tàkk kaa yooyu ñuy wax ci Tuubaa nag gëmaguma ci dara mooy fii may waxee ñaan jabar ak doom ak moodu yi bu ñu leen tooñ mhm. aéroport nag jaar waroon nañ leen xool avant ñu àgg Tuubaa bu ko defee jàmm bu jógee ci Italie nañ yow la ñuy teelu waa ñu leen xoolee ñu am ay jàngoro ñu ñu téye leen foofu loolu kay ñu leen bàyyi dem jaxasoo nit ñi hmm. jërëjëf jërëjëf Mamour Dia bokk na ci li ñuy waxtaane lim gu néew gi euh, ñàkk fay impôt bi ndagum bant yi ñu nemme ko foofee ca alupo Casamance ak frontière bu Gambie ndaje bi dox diggante ñaari njiitu réew mi aha ana waaw ma ne waaw waaw ñoo ngi félicité waa Sud FM ci ni ngeen di sensibiliser askan bi ci feebaru coronavirus. Mhm. bàyyiwu leen askan bi benn yoon. Mhm. chaque jour yéen a ngi ci réew bu dara xewee dara am ca. Mhm. danga nga wax di ca wax ba feebar ba dellu ginnaaw ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax. continué leen li mooy ci. def ñoo ngi masawu européen yi feebaru coronavirus bi dugg seen réew. àddina bi ñëpp a jaaxle continent yëpp virus bi laal na leen. épidémie biy law épidémie a ngi law. te lii law xamuloo fan la yenn nañu continuer di raxas sunuy loxo ak saabu wàññi dajaloo bi ci ay xew pour nga aar sa bopp nga aar sa bopp aar ñeneen ñi. Hmm. yàlla na ci yàlla musal ñëpp. Hmm. président Macky Sall envoyé na message bépp sénégalais bu nekk ci diaspora bi mu ngi leen di massawu ci coono bi ñuy daj waaw góor dafa baax bu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe am defee lu baax dañ leen a war a wax jërëjëf ñoo ngi ñoo ngi def nag. seen warugar def seen kéntu lay kattan am na réew yoo xam ne ñu ngi leen di félicité di félicité Sénégal grâce ak bu ñu xeet li ñu jot rek def dina màtteeg du màtteeg bu def sa loxo gis nañu mhm. àddina bi yëpp ni mu yëngalee respect bi Sénégal amoon day yokku mhm. ñoo ngi ciy félicité président Macky Sall maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall si nga bëggee eggali réew mi suñu baax yàlla na la ko yàlla eggali lu kawe sa njort merci Birama jërëjëf Anna Mendy ñu daal di jël keneen ci ligne bi biti réew 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Chérif. Mister man la Chérif. Chérif aha. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala allahu azza wa jal mu aar Sénégal aar Amérique mhm. aar adduna bi yëpp. amiin. Mister Birima. aha Chérif. xam nga soxlawul ngay doon xaafisu Alqur'an. Mhm. pour xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko denc Arabie Saoudite mhm. soxlawul ngay dem xaafisal Quran mhm. you know te gis nañu Arabie Saoudite bi ñu négligé sécurité bi il y a trois ay deux mille pèlerins dee nañu ci biir Makka mhm. ay de mille pèlerins bi ñu négligé sécurité bi yàlla wàccewul ay malayka pour mu ñëw protéger leen te foofu mooy temple de la foi de l'islam nañ leen waxante dëgg dañ leen waxante dëgg adduna bi yëpp bi ñu ëpp doole ñu yàlla jox première puissance mondiale deuxième puissance mondiale hôpitaux yu gën a moderne ci adduna bi ñoom ñoo fa nekk terewul ñu ngi leen di faagaagal bi ñu sàgganee feebar bi yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax na leen jaral leen dem ba Chine dem uti ji xam-xam bi mu koy wax waxu xam-xamu diine ndax diine gi Makka la wàccoon kon waxu leen xam-xamu diine. science la doon wax scientifique yi yëpp nee nañu pandémie la léegi du épidémie hmm. ñu ne ñun dañuy bàyyi jàng continuer màggali continuer et cetera et cetera ma ne nañ leen nañ leen aar suñu réew mi nañ leen aar suñu réew mi kenn gënu ci gëm yàlla ak waa Màkka te Màkka bi mu jotee dañu ne nañu arrêté umra bi te umra dafa fekk ci l'islam la bokk nañ leen gëm nañ leen dellu ci ngëm yàlla dellu ci li ñu diine sant ñu def ko nan leen bàyyi naafeq bi. Hmm. ñu daal di war ma kàddu yi Chérif daal di jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo euh, waaleykum salaam. sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. oui maa ngi tudd docteur Cissé euh, ci université Dakar laa lay wooyee nii. yow lay teewlu waaw. dama déglu ci euh, néew ki jëkk a wootee. di wax ne ay coronavirus amul fii amul Touba nii mënuñ faj ci buru wa wax boobu c'est c'est extrêmement dangereux hmm. et seen émission yi dafa war nekk pour euh, jàngal nit ñi pour yee leen mais ba Sénégalais di war a jóg tey ñu ne wax ne médecin sénégalais mu turu coronavirus bi amul waa ñu nekk Touba rek ko tuumal bi c'est grave. bu ñu waxoon ci mel il faut li ngeen wax rek bi se grave. ñun ma tey c'est choquant. waaw bu waxam bi. Hmm. jërëjëf waa jërëjëf moom itam soxla nañ seen kàddu comme yéen la laal ngeen wax ci mbir moobule ku nekk ni muy gisee lay waxee ñu mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci lu jëm ci wàllu wax sa xalaat bu 21h jotee juróom-ñeenti waxtu ñu daal di ko bamtuwaat.